asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nday tey mu mel ni leen indilaatoon sëriñ Abdul Hakim borom kéemaan di ko ñaanal sax borom defar ko tawfiixi biir ak jibiti biti barkib xasaayid yi wallaay ndeysaan ñu ngi àndoon nag moom ci beneen vidéo ci jamono ci ginnaaw muy vidéo boo xam ni dañ ci doon wax ñi nga xam dañoo amoon ay soxla ak ñi nga xamante ne ay gént da leen sonal ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg am doom te mënuñu am doom wallaahi ndeysaan asalaamaaleykum seen Cheikh Abdou Touré ñu ngi lay bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu sëñ Xaadim ñu ngi lay ziare di julli ci yonente bi salallaahu alayhi wa hmm. waaw mu mel ni seen Cheikh Abdou dama dégg ñu ni aaroon na doon woon ab yonantu. tamit euh, maa ngi dégg ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos na koo jàpp. waaw suñu xaalim loolu lu wér la. Uh-huh. njibar moom ku naan mënumaa jàpp da ngay wax lu la neex. Uh-huh. ndax ki nga xam ne mooy ngeen di bindee muy sallallahu alayhi wa sallam. Uh-huh. jibar jàppoon na ko. ba sunu borom wàccee ko xula a'uuzu bi rabbil falaqi bi rabbin naasi. looloo ko faj. te gis nga sunu borom ci boppam ay mbiram dafa yéeme. yonent bi mooy ngeen di mbindee sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam te sunu borom daf ñu ko woon bi ismi rabbi. wallaay lazi xalaq xalaq insaana min alaq. Mhm. jàngal ndax nga xam sa borom. Mhm. boo xamul sa borom ñi ma lay yónni pour nga xamal ma leen day jafe. wallaay wér nga laaj ma ci Haaruna. Moussa mhm. Haaruna du woon yonent. Moussa ji bopp moom euh, année bi mu juddu. dañ cee xamaloon Firxaw na ni ko. mboolem góor bi ci juddu kooku moo lay folli Firxaw na ni. góor bu ci judd nañ ko rey mhm. ba Moussa judd ñu yaayam sànni ko fenn soxna Firawna si moo ko jëloon fat ko ci kii bi mhm. pale bi benn suur Moussa da daan jàpp sikkinu Firawna bi bi mu ko jàppee rek Firawna day ngelawal mhm. Firawna daan ni xale bi daal mu jaaxal na ma torop daal di indi tàndarma indi xal teg daan ni bu jëlee tàndarma ma xam ne kii mag la da koy rey bi mu tegee tàndarma bi teg xal wi mu dem bay jël euh, tàndarma ji yonent yàlla jibril suñu borom yabal ko mu feel loxo bi mu jël xal wi mhm. bi mu ko jëlee seq ko la lakk euh, làmmiñ ba mu xaw a dadam mhm. nga xam ne mission bi mu bëgg a dox pour leeral li ko suñu borom yónni du ko man mhm. taxoon mu ñaan yàlla suñu borom ni ko damaa bëggoon nga sama xarit bii di Haaruna nga defal ma ko ab yónnente ndax mu ànd ak man di ma man di jot li sama kala kalaama yi leer kon xam nga ni ñaan lu am la. wallaay ku koy wedd rek da ngaa xamul si. wallaay wallaay da ngaa xamul wallaay wér na de mu mel nii si Cheikh Abdou maanaam euh, xeeti liggéey yi nga xamante ni si yaa ngi ci di ci faj ajo jàmm yi mu mel ni ki ki nga xamante ne dafa bëggoon lu demee ni nopp maanaam su dikkoon ci yow naka lay demee. suñu xaarim boobu moom demuma ci muy wàllu nopp. Mhm. nopp moom boo ñëwee dama lay jox ay bis ay bis laa lay jox. Mhm. soo gisul li ma la wax bis yooyu. Mhm. nga ñëw ma delloo la sa xaalis. loolu wér na ñi nga xamante ni si tamit yaram buy métti da leen sonal ak ak ak ak ay tànk yu métti bopp yu métti yu demee noonu si si Abdou yooyu mbaa xarañ nga ci. wala léeg-léeg ñu euh, nit dem ci mhm. ñu naan ko yaramam diis torop naan ko laa liggéey ñu ne ñu ne ñu koy wax. Mhm. loolu du liggéey cat rek moo koy jàpp. te cat moom incha am na ci garab yoo xam ne si ndem na suñu borom. boo ko sangoo fii trois jours yi nga gis soppeeku bu baax sa yaram. wallaahi alhamdulilah alhamdulilah loolu moom loolu moom man moom man moom am naa ci lu ma leer moom. loolu moom man mii am naa ci lu ma mu ni ñi nga xamante ni si dañuy bëgg di nekk ci ay mbiru làmb comme yu noonu maam ku ci bëggoon a am ndam ak yu demee noonu dañ ciy faral di ñaan wala déet. suñu xaalis mbër am naa ci secret yu wér. Mhm. yu wér yoo xam ne kenn du ko werante ci wàllu bëre. Mhm. ak lu ni football am naa ci lu wér a wér. Mhm. lu wér a wér. ma tudd turam Mm-hmm. mais daaw man ak moom liggéey nañ ci ba mu jël coupe de Sénégal. Mm-hmm. su ma ko waxee boobu bu ko déggee dina xam ni li ma koy wax am na. wallaay wér na wér na wér na wér na walaay des waa kay mu mel ni mbokk yi Serigne Cheikh Abdou Touré la indiloon tey maa ngi fàtte numéro téléphone bi. 77. 501 95 64 ku bëgg a jot Serigne Abdou Latif rek. 84 48. waaw kay. suñu xaadim ñu ngi lay sant di la gërëm. wallaay ndeysaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. jërëjëf jërëjëf si jërëjëf ndeysaan.